dal leen ak jaamu manifestation des oies partout au Sénégal comme ni ngeen ko gisee ci tiitre bi waaye nag dañuy jot ay information ñuy wax ka ne nag li nga xam ne moo di fiche de parrainage yi collecté nañ ko kii di Ousmane Sonko maanaam dootul mën a bokk ci bile liste mu nekk lu ñuy dégg ay leeral nag dinañ ko indi ci bile vidéo ak lu mën di xew daal ginnaaw Ziguinchor Sonko gagné na sa Dakar tribunal Grand instance Pudakar, Dakar jox nako deug dëgg génn bi ko génne ci liste électorale bi jaarul yoon kon Sonko dañ ko wara jox këyitu parrainage état bi nak man naa def voir cour suprême waaye recours bi mënul wàññi dara ci dogal bi nga xamné atté bi njëkk ba jëfëndiko won nako ko ki nga xamné modi Ousmane Sonko dañ ko wara dugalat ci liste électorale bi li le tribunal bu Dakar deugal comme niko ko si Jabès Faye dafe ngeen jëf ñu bàyyi leen ak vidéo bi ak ay léral révélation yi nga xam nak daal di nañ ko siy def te ki nga xam modi Ousmane Sonko ak lu man di xaw dal mom dotul mën a ci bile liste ak lu man di am dal manifestation de joie partout au Sénégal bi nga xamee ne dégg nañ xibaar bi ñepp doon civilé ci marché yi di mu nekk nak c'est la première fois ci lu ni mel yaa jëf. ban article moo wax ne euh, fiche de parrainage bi fi mu ne collecté nañu ko loolu loi la wala ban article moo ko wax ne fiñ ñu toll nii tey la quatorze collecté nañu euh, ne kenn mënatul jël euh, fiche de parrainage loolu moom moom moom bëggoon naa nga nga indil ma ci leeral waaw bu fekkee dafa am benn article bu xam ne ni ci code électoral bi dafa wax ne deadline pour que nit ki mun a jël fiche de parrainage am deadline bi tel jour la voilà loolu daal bëggoon naa moom ngay parce que nag dafa ñëw ci say wax lu bare ngay wax ne mënatuñu am collecturé nañu collecturé nañu loolu daal bëggoon naa moom nga dellu si. asalaamaaleykum Adama Adama maa ngi Adama Adama man. convaincre ñu ma dé waaw man dal convaincre ñu ma waaw parce que nag vraiment man daal bëgg naa ñu respecter suñu république respecter loi yi nak voilà voilà parce que nak euh man dal gëm na ni ñaari ñaari sujet ñu joom quoi ñu mënuñu ñu wo jox dëgg Ziguinchor jox ko ndakaaru Ziguinchor jox jox ko deug ndakaaru ñu ngi am leneen lu ñuy wax quoi voilà man daal bëgg na ñu tek mbiri ci yoon quoi ñu xam ne ci république la ñu nekk Macky Sall moomu ko Amadou Ba moomu ko encore une fois waaw ñu nañ nañ nañ yii yii mënul wéy il faut que ñu régler régler suñu république bi voilà waaw appel moo dagg sama audio bi ma àndaale nii Euh, waa Pastef wala son ko amagul fii su parrainage nekk gu ci ay loxoom ba léegi moom amagul fu mu def ay parrainage am même bu amee ñu ko parrainel mën na ko parrainer si député yi mais amagul fiis bi te fiis bi bala mu koo mën a jot bala moo mën a jot fiis boobu noonu dañoo dugalaat Ousmane Sonko ci liste électorale bi ba pare waa DGE door ko mën a jox fiisu parrainage tant que nekkul ci liste électorale bi DGE du ko jox fiisu parrainage atté bi tay buñ démé tay duñ jot fiisu parrainage buñ démé suba duñ jot fiisu parrainage ba feek délai bi nga xamante di mom lañu wara défé recours jot nga xamné dañuy tejj complètement lool té japp na né ñi nga xamantene bi ñoy avocat nguur gi nañ yobbu dem déposer ji te xamna naa ne bala def dañuy dem ba sa chat la manam buñu ñu leen appelé fan dañ dem ba sa juroomel ba sa ñenti fan ba sa juroomelu fan ba ñu door dem diko ko defi mu nekkaat procédure bu gudd encore bu demaatee fofa ñom dañu sey seugat jappat datu dat bo xamante bi mom lañuy wara saytu wat li nga xamante bi loolu la tribunal bi joxe tay te bu boba day fekk le 26 décembre bu jot parce que mën ñu war a si diggante day gatt te bu fekkante ne def nañ ko ci def nañ ko non manam jaar nañ ci procédure bobu non le 26 bu joté mom dañuy traité kenn dotu mo déposer parce que déposer candidature le 26 la yem. kon loolu képp koo xamante ne bi sama xel daa gàtt ba nga jàpp ne Ousmane Sonko day bokk ci élection yi yaa ngi nax sa bopp Ousmane Sonko mënoon bokk ci élection yi même bu yoon àttee jox Ousmane Sonko lépp dëgg Ousmane Sonko dafa amum perte ba pare te mënatu koo am mooy fiche de parrainage te jàpp naa ne man mënatu koo am bu ko dee amati yeneen élection lay doon mais du suñu élection yi moom loolu moom xam naa ko moom. waaw suma sëriñ maa ngi lay siyaar bu baax maa ngi lay siyaar waaw xam nga liste bi pour ñu nga bokk ci élection yi dafa am ay pièces yu ñu lay laaj comme ni nga ko waxee mais mais fiche de parrainage am bu ko ko yoon joxee dañ ko ko war a jox loolu mooy droit bu fekkente ne nag casier judiciaire bu sa mënu ko am kooku nañ ko xaar foofu parce que bu fekkente condamnation contumace bi c'est définitif bu demee jëli euh, demande casier judiciaire bu verse de troisième degré moins de trois mois wala trois mois du du ko mën am. bu boobaa buñ ko kalee parce que amul de judiciaire bi versé man dama ciy ànd mais quand même quand même euh, bu faites ne ne yoon daf koy réintégrer, ci liste yi nañ ko ci dugal jox ko liste di jox ko de parrainage Benen pièce buñ ko mën a bloqué wala bo xamante ne bii boobu laaj nañ ko ko te amu comme casier judiciaire bu verse su ko amul bu ñëwee euh, ni ñu ko waxeeti euh, ñi nga xamné ñoy ñoy conseil constitutionnel ñoy joxé euh, valider candidature yi ñu refuser ko mu jeex mais quand même nañu respecter loi bi lañu ñu yegg foofu. waaw moom sama sëriñ ma ngi lay siyaar bu baax non fay euh amone il a dit le droit hein peut-être loolu la wax parce que loolu la mu waxoon confirmer mais compétence amoon na ko wala amuñu ko yaakaar naa ci loolu la ñu doon wax quoi parce que nag Ousmane Sonko euh, di dafa dem euh, tribunalu Ziguinchor te fii kenn ku ne xam na ne Dakar la le la dëkk am na fi kër fii la domicilié voilà loolu mooy problème bu fekkente ne nag problème bi ci document bi ko UG bi doon yóbbul la seet ko fii këram gisu ko vraiment foofu rek la erreur bi nekkoon mais ñaari suuf yi li saabu si fay li ma wax ak li kii wax la man yaakaar naa daal problème bi mu ngi nekkoon ci waroon nañ ko yóbbu Ziguinchor ak Dakar lañ ko war a waroon na sujet parce que Cour suprême loolu la loolu la rétablir moom moom waxul ne saabu si yaakaar naa compétence am la la contesté mais contesté wul. li nga xamante bi mom moom la saabu ci def parce que dafay dafa dafa len orienté wat ci tribunal Dakar nañ dem fofu ñu àtte